démb dañu dañu xëyoon ay commerçant lañ toog suñu place yi jékki-jékki rek ñu dégg ay fatel di dóor waaw veru dix heures yooyu après nag si lañ tëjee boutique yi sama rakk ji man sama place laa nekk sama rakk ji ak sam papa ñoo nekk place ñoom it ñu tëj ñu dem kër ga man it daal si laa toogee noonu tëdd bon après daal euh, ay vers treize yooyu da fekk sama papa di nelaw mu ne ko na ko jox xaalis mu dem jëndi añ bon comme am na beneen sénégalais bu andi oto ne ko kaay ma dem yóbbu la nga dem jënd añ après ma andi waat na si la demee laaj paa bi xaalis paa bi jox ko ne ko mbaa yoon bi wóor na mu ne ko wóor na noonu la demee daal biñ demee ba euh, quartier bu tudd nga fi la tasanteeg euh, chrétien yi bon jël leen lakk oto bi waaw beneen chauffeur bi moom euh, ki tudd Cheikh Gise bi moom it dañ ko dañ ko lakk lakkaale ko sama rakk ji aussi ñu dóor ko ay xeer jam ko ba mu dee noonu photo yi sama la ko envoyé waaw parce que affaire bi jullit yi ak chrétiens yi ñoo nekk di di di di laalante fii daal waaw parce que si luñ dégg jullit yi dañ demoon xaw ma euh, dañoo amoon chrétiens yi dañoo ñëwoon def attaque si ci quartier jullit yi fii ñu dëkk jullit yi aussi riposte leen après ñu replié wu jullit yi dal ci benn église bi rey fa pasteur bi xaw ma bon ñoom it chrétiens yëpp révolté wu far yàlla def bi muy génn nag di dem di jëndi añ gaa yi tasante ñoom ñaar sénégalais ñu rey leen waaw ni daal la fa demee nii daal la fa demee